Euh, li ñu wax ne sunu boom mi waxtu wuy wuy defar day nuróo ku yàq sëñ Tuubaa dafa mën waayam sëñ Tuubaa dafa mën waayam képp ko xam dana la jaral lu ne waaw ndax sëñ Tuubaa yi koo xam ne suñ la xañee dara muy benn ngir moom mu fay la téeméer ba ñi la ko xañoon teg seen bët ndax sëñ Tuubaa àndunoo moom àndunoo moom ci ay donte ñun ñu ngi ko yaakaar ngir ëllëg ngir ëllëgee moo ne ñëw leen jox ma ci seen bopp ci fii nga xam ne mën na leen ngeen fu seen bopp dara ëllëgee nga xam ne mënul leen fu seen bopp dara ma mën na leen fa dara waaw kon lu ñu am ci karange àdduna rek mm-hmm. bénéfice la ci ñun waaye ñun suñ tubaab toppuñ ko àdduna waaye nag euh, yaakaar gi ñu ko yaakaar faw muy mu ñuy wan lu dalal suñu xel fii ci àdduna ci ne suñu yaakaar fële ci ëllëg mu tas waaw ndax Euh, ni ko Ibra Ibrahima euh, Ibrahima xool suñu borom bi rek mhm. ba mu koy wax ne ko damaa bëgg nga wan ma nga ma nga wan ma la nga wan ma gis la mhm. yoon suñu borom bi ko wax ne ko ah mbaa da nga bëgg a dégg dégg sama mbir mu ne ko déedéet waaye damaa bëgg lu gën a daral sama xel mhm. mooy mooy mooy mooy mooy mooy mbirum sëñ Tuubaa moo tax xewal yéeg daraja yéeg barke bi yëpp maanaam li ñu wax naan bénéfice la ci ñun rek waaye nag teewul sëñ Tuubaa moom lépp lu lu loo ñàkk ngir moom benn mu fa am am